bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu colo xarle wi seen mbokk Alioune Badara Socé Sud FM seen rajo ci seen jotaayu tafsir mi leen defal aju jot ci waxtu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 ñoo ngi ci aaya ju tolloog 32 waaye ni ñu koy baaxu ji defe mooy jàngal aaya ñëw ci jéem koo firi ak jéem koo tekki audu billahi min alsheitan arrajim alladina yajtanibuuna kabaira al ithmi walfawaxisha illa lamam inna rabbaka waasiu lmaghfira huwa aclamu bikum is anshaakum min al ardi wa is antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakkuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa sadaqa allahu alazim wa balax rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shahidin allahumma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyamati shafi'a wa ala sirati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna naari sitran wa hijaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa juudika wa karamika ya karamal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nag ci ak seen njaboot yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ngi ñaanal sëriñ yi daar yi dongay daar yi ak yaayi daar yi tabaarakallahu suratu najm aya 32 borom bi nee na ñi nga xam ne dañuy moytu bàkkaar yu mag yi di moytu njombuteef yi bu amee lu leen dal bakkaaru lamam lay doon ñetti bakkaar yi sunu borom nee na kum nekkul ci sa dossier yowmal xiyaam plaidé ko du jafe te nga xam na nag inna rabbaka sa borom waasiul maghfira ku yaatu sutura la waaw ku yaatu sutura la moo tax ganaar ci am sutura la ganaar bokk mooy bu dara yëngoo doom yépp ay daw moom ganaar dugg ci biir laaf yi mu uuf leen te doom yi xam nañ ko moom ci boppam mi ndey ji xam na ko yàlla nee ganaar googu am na sutura de waaye suturam du asakay asakay asakay sama sutura wa aalamu bikum borom bi nee na ni ma leen xame ku dul man xamewu leen noonu ni ma leen xame ku dul man xamewu leen noonu ñu ne ha mu ne is anshaakum min al ard maa ngi leen sose ca suuf sos googan lama ma ca xam kenn xamewu ko noonu wa is antum ajinna ba ngeen nekkee ay liir fii butuuni ummahatikum la fa xam kenn xamewu leen noonu fala tusaku anfusakum bu fi kenn bàkku <laughs> fala tusaku anfusakum bu fi kenn bàkku waaw weer nga weeru la ilaha illallah bu fi kenn bàkku bokk yi sunu borom ne na fala tuzakku anfusakum bu fi kenn bàkku huwa moom aalamu bi ma nit ki ragal yàlla nim ko xame kenn xamoo ko noonu mbokk yi loolu mooy firi waaw loolu la wolof yi daan wax firi tekki nag moo gën a yaatu loolu mooy wax ma moo tax muy wax jé jéem a firi ak jéem a tekki waaw firi mi daal mooy loolu <laughs> jéem a tekki nag leneen la keroog ba ñu dajee kokki ndeysaan sunu mbokk Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye Cheikh defe naa noonu lañ koy woowe yàlla na ko yàlla yokk wér ba mu ñëwee ba firi wa man an dhikri fa inna lahu maishatan danka sunu borom nee na kuddu mooyu kuddu mooyu alxuraanam ji sa dund day xajam sa dund day karaj sa dund day bëri benke ñenke waaw ba mu ca noppee nag ma ne ko man xam naa kon ma wil ko ginnaaw yow firi ko danga may may ma tëwil ko mu ne ay ca mu ne borom bi daa wax ne wa man aarda képp ku déconnecté an dikri ci sama réseau bi fa inna lahu day am ma isa réseau boo xam ne donka bu ñuy buree lay doon waaw <laughs> kenn mënu ko bu bàyyi fi réseau bi yàlla bi dootoo am foo connecté maa la ko wax loolu mooy loolu mooy te mooy mooy mooy jéem a tekki sourate Najm aaya 32 bi borom bi waxee loolu def ca junj laaj ju am solo alladina yajtanibuuna kabairal ithmi ma doon ànd ak yéen nag ak Baye du Jaxate ci kabairul ismi ma limoon ca ashirku billaahi muy bokkaale ñaareele ko xatlu nafsi mooy rey bakkan ñetteele ko sixar mooy njabar ñeenteele ko tarku mooy bàyyi julli juróomeele ko manu zakka ñàkk joxe asaka wala lànk joxe asaka juróom benn la ko iftaaru walla boog dog ab bés ci weeru koor ci lu dul ngànt sunu basu tey Baye Modou Jaxate mooy juróom-ñaareel bi te mooy tarkul xajji ma al qudra alayhi bañ aji te mën a aji aji waaw aji mooy aj makka mooy aj makka borom bi daa wax ci alxuraan doon woote ci aj ga ba dem suuratul xajj ba mu waxee ibrahima wa iz bawwa'naa li ibrahima makaanal bayt ba mu waxee ba mu ba mu wàccee ibrahima fee kaaba ga nekk tey mu wàcce fa ñaareelam ba ak taawam ba ndax ibrahima ab ñaareelam moo jurub taawam ibrahima ab ñaareelam moo jurub taawam ab aawoom jurul taawam mu wàcc fa taaw baag ñaareel ba li muy ki mooy góor gu yéex a am doom la bëgg doom lool yéexa am soxna su ndaw bëgg ko lool sunu boroom ne ko nag rendil gone gi loolu ay mbir la yu baree bari yoo xam ne ca jamonoy euh, jamonoy tabaski ga ñëwoon nañu ci waaye ba mu noppee def na ko wa azzin fi naasi bil xajj wa azzin naasi bil xajj aca wooteel wooteel neel yéen nit ñi kaay leen aj si Ibrahima daal di koy wax sunu borom ne ko waaw baax na yow wax ji moo la war jot léegi maa ko féetewoo danaa ko jële fii ba yóbbu ko ci min kulli fajjin amiq hmm? waaw waaw danaa ko jële fii ba min kulli fajjin amiq ndeysaan bàyyi alaaj njaga njaay ca njëre tubaa njaay ak laay ji waaw bàyyi alaaj njaga ca njëre tubaa ak laay ji xam naa lu waxtaanu penc nag waaye daal bàyyi alaaj njàkka njaay ca njare tubaa njaay ak laay ji wa azin fi naasi bil hajji yaatuuka <laughs> yàlla yokk suuf ci koom waaw wa azin fi naasi rijaala wa ala kulli daamir daamar ju ne daañ ko war ñu wàcc ah mu ne maa la ko wax wa ala kulli daamir daamar ju ne danañ ko war aj la tàmbalee ca mbaam la tàmbalee ca mbaam ba ci avion bi mujj xew wa ala kulli daamir daamar june danañ ko waaj war aj si mu ne haa mu ne ko yatuuna min kulli fajjin amiq wala yatiina min kulli jin amiq lu barab sori sori dañ fa jóge ñëw léegi nag ngir dëgëral loi boobu muy loi bu woote bi sunu borom teg ca ne walillaahi ala nnaasi xijjul bayti walillaahi ala nnaasi xijjul bayti yàlla sañ na waral ci nit ñi ñu aji kaaba ga walillaahi yàlla sañ na yàlla am na sañ-sañu sant nit ñi aj waaw yàlla am na sañ-sañu sant nit ñi aj waaw xam nga nit léeg-léeg mu ne ci dara ay sañ-sañam am fu mu gis nga suñ CREI bi ak nag bu fekkoon seeni sañ-sañ sañ-sañ yu gën a yaatu yi ñu am lañ xaalis réer ci pénc mi du yomb mukk du yomb bu fekkoon ñi garde yoon weeg surcharge yeeg ñoom seen seen sañ-sañ yokk na am na yoo xam ne def ko du yomb moo tax yàlla jiital wallaahi ndax dafa yoo xam ne day day day day mottali euh, bay moo Modou Jaxate suñuy jàng suratu al-Fatiha borom bi daf caa def juróomi tur waaw allah arrahman arrahim arrabb almalik <laughs> waaw juróomam yooyu allah arrahman arrahim arrabb almalik tur wu ci ñëw rek bu fekkoon dama koy misaal dama naan tur wu ci ñëw rek bu mu ñëwee na muy complété tur tax na bu amoon lu fa naroon a am te mënu faa am loola du fa am mooy sañ-sañ yi mooy yokk ba sañ-sañ yépp farmat sëkk waaw mu nekk yàlla ñu ne waaw mu ne bëri yërmande lool te yéene jàmm waa ñu ne mu ne mu nekk rahim yërëm ña nga xam ne ñoom ñoo yeyoo yërmande ndax ñoo ko liggéey ci àllaaxira yàlla na bokk ngeen bokk ci yaay Maodo bokk ci ñu ne waaw mu ne arab dafa ñëpp bind lépp bind ñëpp ñu ne waaw mu ne almaliku waaw dafay buurub ñëpp yilif ñëpp gis nga juróom yi ku ko boole amatoo ragal amatoo tiit amutoo looy jàq amutoo looy jàxle jalla jalaalu azza kamalu kon nag walillaahi walillaahi yàlla sañ na ala naasi waral ci nit ñi xijjul bayti aj aj kaabak aj aj néeg ba al bayt bayt ba nga xam ne moom la tabaxloo woon ibrahima alayhi salaam mook doomam ja mu ne ko wa tahir baytiya li taifina waaw mu ngoog albayt mu tuddee mu tuddee néeg ba mu tuddee kaaba ga néeg albayt moo tax fu jàkk sampe ci àdduna si rek mooy baytoom fu jumaa sampe ci dëkk ci àdduna si rek mooy baytoom moo tax léeg-léeg nga dem ci quartier quartier ba yëpp amul jumaa sunu borom ne waaw yéen ku doon ku doon séddale suuf si ñu ne ko xanaa murux ji mu bëgg xaalis mu ne ah séddale suuf si ba mu daj ci awma fi néeg awma fi kër ñu ne ko ah waaw fii de moom doo ko fi am mu ne du ngeen fi nekk jàmm de du ngeen <laughs> mbokk yi léeg-léeg léeg dem ci benn cité ki yilif cité bi te doon dagg di jaay séddul yàlla kër séddu ko néegit lu tax parce que jàpp na ne bu ko séddee kër mbaa néeg li muy am ci xaalis day day manqué ndax bu fekkee ne euh, quinze sur quinze quinze sur dix yi mi ngi koy jaayee quarante millions jàpp na ne bu ko joxee yàlla perte bu fekkee mille mètres carrés yi mille mètres carrés yi mu ngi koy jaaye deux cent trois cent quatre cent millions jàpp na ne bu ko dee yàlla perte moo tax mu muy dagg mën a dagg ab cité ba mu mat sëkk ab cité walla sax ab quartier ba mat sëkk yàlla du fa am néeg du fa am kër ñu seppi ca loxoom danay wax ne ñoom professeur Jibi Jaxate yàlla yàlla yokk leen wér macha allah ko séenee cib jataay rek doo zappe waaw boo ko séenee cib jataay doo zappe ndax danga xam na dana la wax njëriñ ma wax la ko tey professeur Djibi Diakhaté waaw <laughs> keroog ba nu falee conseil économique ci laa demoon mu jàngal ma ndeysaan <laughs> mu ne dëgg maa war na woo mu ne ko ëpp naa def maam Shafi nee na koy jàng yaay dem waaye ñoom professeur Djibi Diakhaté bu ñuy jàngalee dafa am xam-xam bu ñu tuddee chimie def naa nu la tudd euh, ak bu ñu tuddee euh, beneen xam-xam ba fàtte naa ko mooy ñiy natt kër yeeg yooyu xam nañ ne kees gu kaare kenn mënu koo këb dëpp ba max ko mu daanu kees gu kaare kenn mënu koo ba mu daanu da ngay ba max muy dem rek kees gu kaare kees gu triangle wala rectangle nag moom moom kenn mënu koo samp moom it waaw kees gu kaare gi mooy quartier boo xam ne wala cité boo xam ne euh, dafa am nit dafa am yàlla boog am ya dafa dëkk am yàlla waaw am nit am barab bi ci boppam am la science boo seppee yàlla bàyyi fi ñett nag moo moo kees gu am ñetti koñ ñooyam ak naqaree samp moo tax mbokk yi quartier yeeg yooyu nañuy am nañuy am kër yàlla ak néeg yàlla waaw maam Cheikh Al Hadj radiallahu taala anhu mi nu waxoon yaa xaayisal baxar <laughs> yaa xaayisal baxar lil asdaafi bu leen dem hmm, fu ngeen jëm fu ngeen jëm lil asdaafi alors ah, kay jarul dem indi asdaafun waaw <laughs> xam naa sëñ Ousmane Ndiaye bu ko firi woon fii yaa xaayisal baxari fu ngeen jëm ah fu ngeen jëm dangeen a bëgg dem ca suuf géej ga fekk fa per yu sell ya te rafet ngeen jël ca per ya indi takk mbaa ngeen jëfandikoo jërul dem toog leen fii ma yoor sama loxo seppil leen ca ca ca per yooya jox leen moo tax ba ko góor ga suñ aad yu tàggoo ne ko dama bëgg a dem Maroc looy wuti damay jàngi looy jàngi mu ne ko xam-xamu riyaadiyaat waaw xam-xamu mat xam-xamu bidiw xam-xam waxtu mu ne ko toogal ma faggul la ko wala toogal ñu faggul la ko <laughs> moom bi mu ñëwee Dakar fi gën a seer ci Dakar tey muy fële ca sànd ga nga xam ne benn mètre carré ñetti million mayu la ko fa ci jamono yi tey mbaalu ko ëpp foofa la amoon benn barab xawma lu barab ba toll ci mètre carré waaye barab ba mat na zawiya mu def ko zawiya mu yéen doo ko def centre commercial mu ne déedéet ak doo ko def kër boog di fi dal mu ne déedéet doo ko def kër njaboot gi di ci dal mu ne déedéet dama koy jox yàlla booleeg njaboot gi jox yàlla yàlla ma gën ci njaboot gi waaw gën leen ci man moo tax mu defal fa yàlla néegam boobee mbokk yi yàlla néegam bee la bëgg man istata ilayhi sabila nga dem yàlla nee na ku mën a dem na nga dem ku mën a dem na nga dem ku dem benn yoon def nga la la war fexe ba keneen dem moo ko gënal ngay demaat terew la demaat nag waaye ginnaaw dem nga fexe ba keneen dem moo la moo gën nga demaat moo ko gënal nga demaat kon nag ku ma man istada ilay sabila ku mën a dem na dem waaw nee nañu quota yiñ daan may réew mi mayaat nañ ko ko fukki junniy ujaaj ak ñaari junniy ujaaj ak juróom-ñetti téeméeri ujaaj waaw may nañ leen ko waaye fi ne ñiy organiser aj ni ni parti yu toll ci réew mi noonu lañ toll waaw ñi association islamique léegi tey ñu àgg ci nombre boobu ndax réewum Sénégal lu waaye def am ca fukki dërëm boo xëyee am ca fukki dërëm bu ngoonee nga ami gan ñuy def ni yow ñëpp di wut waaw te bu nu woote woon ne dañ koy privatiser ca jamono yooyu adduna tukki ku ñu nangu woon say quota adduna tukki ku nangu sa agrément adduna tukki waaw <laughs> mu ngoog mu tax léeg-léeg jafeeñ jafeñ di ca am ca organisation baag ca dem gaag ca dikk gaag ca nekk ga foofaak ca njàng maag yëpp di ca am waaw tabarkal walillahi ala nnaasi xijjul beyti man istataa ilayhi sabila alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee ci adis bi bi mu ñëwee ci jataay bi ngi wax hadis boo xam ne bi tirmisi moo ko nettali bay àq yi ko ci riwaayab alxaaris waaw mu ne ca tirmisi garibun laa yucrafu illa min hada alwajh waaye walahu shahid walahu shahid inda albayhaqi min hadisi abi umama waaw loolu mooy ñi taxrij hadis mooy ñi taxrij hadis ñi koy def ci ilmul mustalah adis bi def ne man malaka zaadan wa raaxila tuballiquhu xajja baytillahi alxaram wa lam yaxuj fala alayhi an yamuuta yahudiyan aw nasraniya wa dalik li anna allaha taala qaal walillahi ala nnaasi xijjul beyti man istataa ilayhi sabila ngoog nee na hadis bi nee na képp ko am yóbbal képp ko am yóbbal yóbbal yóbbal mooy la nga fa mën a nekke yóbbal mooy am nga loo luyee néeg boo nekk ca Madina am nga loo luyee néeg boo nekk ca màkk léegi hôtel la gaa yi jël hôtel bu yu luxe sax te cher waaw nga xam ne mën na soon naa dem màkk luye ca kër ya waaye de eh, ay ku ko defal sénégalais xam hôtel kay ngay dal cinq étoiles waaw seer lool nga def ci lu bari lool ñàkk ci lu bari lool te mënoon a ñàkk nga xam ne loola boo ko xaajoon nga mën ci aj yaag ñett boo ko xaajoon nga mën ca aj yaag ñett waaye cay boo dalee leen nit ca kër ga laaj ko ba ñu àndeek duwaan ñu dal ca kër ga ca fële ca boor yi Azizia <laughs> lay ndeysaan waaw at mi sunu wajur wa Sëriñ Saaliwu nelawee ndeysaan yal na yàlla yokk leeram sunu wajur woowu <clears throat> yóbbal mooy am nga loo jëlee dëkkuwaay ca mag Madina am loo jële dëkkuwaay ca Makka am looy ndékkee ak looy reere ndax réew yooya bokkut ak sunu réew yi nga xam da ngay añ ndékki reer suñu wére digg yëpp looloolu nu ko def maax la ko tey te ndaw ku ndaay nanguñ maa fekk ci may wax réew moo xam ne dangay añ reer ndékki suba nga xëyaat añ reer ndékki rek tabarkàlla waaw <laughs> suñu wajuro sëñ Saliou nee nañu ak mu ne alhamdulilah ñu ne ha mu ne bu sunu biir yi féete woon gennaaw kenn dox <laughs> mu ne mu ne borom bi moom comme xakim la mu wuufal nu ko waaye bu nu ko bootaloon <laughs> bàyyi Saliou boo ko waxoon Serigne Saliou allahu akbar radiyallahu taala anhu yàlla mooy xakim ñu naa mu ne bu nu bootaloon suñ biir yi <laughs> kenn du dox mu ne mu uufal nu ko <laughs> seetal waxi mag la wax ju am solo nag waaw mu ngoog kon ki dem màkk maa ngi ci man man man malaka zaadan ku amub yóbbal bi nga amee loo faye foo dëkk ca madina diir ba nga fay nekk am loo faye ca màkk diir ba nga fay nekk am loo faye kaar ba fay jële yóbbu la nga am loo ko faye am loo jëndee armal waaw am loo jënde armal mhm. am kaar bu la mën a jóge ma jële madina ba yóbbu la biir ali jëlale biir ali yóbbu la màkka nga am loo faye dëkkuwaay ya ca màkka waaw nga am loo ko faye am loo faye kaar bu la jëlee màkka yóbbu la muna am loo faye kaar bu la jóge jële muna yóbbu la arafa am kaar bu la mën a jëlee arafa indi la indi la musdalifa waaw yooyu yëpp am nga ko yooyu yëpp am nga ko mu ne képp ku am lii mbokk yi sunu borom ne na képp ku am lii loolu la ñuy boole packagé e ko jox ko ñuy organiser daal di génn yow waaw daal di génn mu ngoog jox ko ñuy organiser daal di génn am na ci ku ñuy wax Marega nga xam ne mook si defeem ay at a ngi ni ñooy ànd liggéey bi tubaarkàll yàlla na yàlla sàmm leen te gën leen a soqali gën a yaatal yëf ya waaw mu ngoog ñoom waa ñoom waa Sud la moo tax wax ko du publicité <laughs> parce que partenaire la ñu Baye xam na ci dara waaw parce que partenaire la ñu waaw merci Maguette Ga <laughs> waaw ngeen baal ma boo amee yóbbal yooyu wa raaxila raaxila mooy am loo war loolu mooy billet avion bi avion bi lay jële Sénégal yóbbu la Makka jëlee la Makka delloo si la Sénégal loolooy raaxi la yàlla na yàlla suqali sunu air Sénégal mii ba nga xam ne dootuñu xaaraan avion ak mag li ci gën a métti boo ko laajee ñuy organiser ak ujaaj seen bopp mooy xaaraan avion xaaraan avion mooy jël compagnie bu dul sunu bos jël compagnie bu dul sunu bos man bi ñu amee compagnie ak léegi bu ma fi jógee di dem France mbaa may dem Italie lu billet lu billet bu Sénégal bi cher cher moo a gënal beneen billet bu yomb laaj ko alimatu mi may daggal billet yàlla na ko yàlla yokk te duma jàmbat bi yëpp Air Sénégal bu cher parce que je suis un Sénégalais et euh, fier xam ni ñu koy waxeeti et fier d'être un Sénégalais même bi fi Air Afrique di nekk ah man noonu laa ci meloon waaye bi muy bii moom macha allah même suñu ma mayul bagage même su tardé ah ngeen baal ma nag même su tardé avion bi am na retard une de temps laajal ñi may àndal duma jàmbat la meer ba waxoon ba ñuy dem <laughs> ba dem Mbàkke te nu te nu duggub njaga njaay mu ñu yàkkale rek <laughs> yàlla du yàlla yërëm njaga njaay ba du ñu yekkale rek waaw jóge ndakaar <laughs> àgg àgg xombal mu yekkale nu nu dem fanati Bambey mu yekkale nu ñu dem Jurbel mu yekkale nu <laughs> benn meer xool ma ndeysaan xam naa yëf yi metti ko mu ni ma yow xanaa doo góor <laughs> si tit ndeysaan di may xas quoi <laughs> góor laa de mu ni ma déedéet kay yow yàkkale nu yàkkale nu nu xombal yàkkale nu baamay yàkkale nu jurbel ah yow lu tax nga jël nii rek ma ne ko ah waaw <laughs> bàjjen mu ne ma ba ma ne ba bàjjen ma ne ah bu metti de waaye gis nga <laughs> kenn mësu koo gis rek ma dellusiwaat ci raaxila mooy am waruwaay yàlla na sunu avion yii di Air Sénégal mat sëkk ba des ña ca nekk di liggéey yàlla na yàlla barkeel ba ñu am ay avion yu bari ba dootuñu xaaraan avion xaaraan avion métti na ndax avion boo xaaraan daf la yóbbu ba ca réewam domp ca sa boos dara door laa yóbbu fa nga jëm màkk boo jógee màkk mu delloo si lam réewam domp ca sa poos dara door laa indi sam réew laaj ko ñuy dem ñépp nag waaw xam nga jóge fii jël benn avion boo xam ne da yóbbu ca gannaaw màkk door a wëlbati ko indi la màkk loolu metti na boo ñibbi mu yóbbu la gannaaw màkk dooru faa jóge indi la Sénégal loolu métti na ala kulli xaal ku am ñaar yooyu am na am na yóbbal am na waruwaay ñaar yooyu man koo yóbbu ba màkka tuballiquhu xajja baytillahi alxaram walam yaxujjate ajut hadis bi neena na fala alayhi an yamuta yahudiyan ne mën naa faatu nekkub aw nasraani yan mën naa faatu nekkub chrétien ñu ne ha mu ne ndax yàlla moo ne walillaahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilay sabila kon ku mën na dem mbokk yi ku mën na dem waaw ku mën na dem ku am yóbbal am waruwaay bu lay mën a àggale ba makka na dem waaw omar ibnu xataab radiallahu taala anhu mhm, ci waxtaan woo xam ne euh, said ibnu mansour nettali na ko ca téeram ba ñu jëlee ko ci alxasanul basri jàmbaar ja mu ne omar dafa wax wax ji ibnu kasir ca tafsiram ba it wax na ko omar ibnul xataab waaw bi tazza diinul Mustafa waaw is yu zaziw Omar ibnu Xataab jàmbaar ji nga xam ne bi muy dugg ci lislaam mooy numéro 40 kere bi muy génn àdduna mooy numéro 3 loolu la yàlla dogal ba muy dugg ci lislaam mooy numéro 40 bi muy génn àdduna mooy numéro 3 waaw ndax loolu alayhi salaatu salaam doon woote démocratie bi ci nekk dafa nekkul ci parti yi bi nekk ci li alayhi salaatu salaam doon woote dafa nekkul ci parti moo tax mën ngaa dugg di raam li nga li nga li nga yeyoo lépp nga jot ko maa la ko wax li nga yeyoo lépp nga jot ko loolu nag du ay théorie du ay du ay teg du ay wax ak i nangam déedéet lu leer naññ la Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu moo tax bi fi alayhi salatu salaam bàyyi koo omar toog ay eh, abubakar toog bi mu fi jógee omar a toog maa la ko wax te moo war a toog te moo yeyoo toog ndax ca joxañ ja ba demee ca ah, sababu nuzuli eh, sóoratu taxrim dana da nga ca fekk lu gën a yaatu <clears throat> omar ibnu xataab nee na laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila haasil amsaar fa yansuru kulla man lahu jidda walam yaxuj fal yadribu alayhi ljissa wa ma hum bi muslimin Omar nee na lii laa naroon loo naroon xanaa wut ay délégation wut ay délégation wut ay jàmbaar wut ay semi wut ay gendarme wuti alkaati mu loo koy doyee mu ne ma yebal leen ci région yeeg département yeeg arrondissement yi lu ñuy wuti dañuy xool ku mën a aji ba noppi lank aji ku am yóbbal am lu mu war ba noppi bañ a dem ñu koy laaj impo ñu koy laaj impo ndax maahum bi muslimin bokkuñ ci ñun cey impo waaw ndax ci li yonent bi doon woote alayhi salaam ku ca bokk doo joxe impo asaka ngay joxe li yonent bi doon woote alayhi salaatu salaam ku ca bokk doo joxe impo looy joxe asaka ngay joxe de virgule cinq pour cent ci li nga am bu fekkee la nga am mat na nisaab te duñ ko teg ñëpp boo génnee lim doon woote nag mën ngaa joxe impo ba noppi di génn asaka su fekkee dangaa bokk ca la muy woote ba noppi nekk ci réew moo xam ne moom tam réew ma duñ ko doxal ca la mu doon woote muy réewum layit moom tam da ngay joxe impo di joxe asaka mu saf sàpp mu saf loolu lay joxañ fii falyadribu alayhim al jizya mooy nañ leen laaj impo waaw moo tax lislaam journaliste ba ci dëkk fële ca France ba mu ca ba mu ca duggee nee na bi mu nekkee ci loxo te nekk ci loxo jullit yi ñu téye ko nee na suñ ko téyewutoon du xam lu xew suñ ko téyewutoon du xam lu xew waaw moo tax ba alxuraan di wax mu ne ku jaaxle te bokkul ci diine ji bu ñëwee ne la làq ma fa ajirhu nee na làq ko ndax làq gi nga koy làq dana tax mu dégg kàddug yàlla mbaa ma gis ko ci say comportement allahu akbar làq ko ku jaaxle te bokkul ci diine ji bu ñëwee na la làq ma rek làq ko làq gi nga koy làq mooy tax mu xam li nga nekk parce que wujj lislaam yi kuñ waxal lislaam doo bëgg lislaam doo bëgg ñooñ lislaam ñu ne ci lislaam it te yor comportement yu bukk te yim bëgg kenn du nekk ak ñoom xemeem ci dugg ngeen ngeen baal ma ci ci ci ton bi may waxe nii waaw ngeen baal ma ci ton bi may waxe nii mu tax Omar mu ne ñooñu dañ leen di laaj impôt waaw maahum bi muslimin ndax ñun bokkuñ ci ñun mbokk maa ngi sóoratu naj mi aaya 32 maa ngi ci kabaayir yi maa ngi ci kabira bu juróom-ñaareel bi mooy mën aji ba noppi aji woo ibnu abbas radiallahu taala anhuma yàlla na yàlla gërëm ko gërëm baayam abdullahi ibnu abbas ak abbas ibnu abdul muttalib ñaari jàmbaar lañ ñoom it mina sahaaba ridwanullahi taala ajmain yàlla na yàlla gërëm leen asahaba mooy ñi àndoon ak alayhi salaatu gëm ko ànd ak moom bu génn àdduna ci gëm ga benn ñu jiitu ko moom alayhi salaatu wasalaam wala mu jiitu leen dafa wax ne moom ibnu abbas ma min ahadin lam yaxujja wa lam yuaddi zakata maalihi illa saala rajaa inda al mawt na ko am alal joo mën aje am waruwaay wala mën a yóbbu ba noppi nga toog defoo ko nee na bis boo tollee ci sokaraat ba gis li ci sa kanam danga ne sunu borom law laa axartani ilaa ajalin xaribin ah mu ne maa la ko wax ku am lum aje ji te ajiwut lum aje ji mooy am na yóbbal am na waruwaay ba noppi mu toog di mut mbokk lu jar bàyyi xel ngi ni lu jara a bàyyi xel ngi ni kabira bu doy waar ngi ni waaw ah mu ne ku def noonu bu su ko sukkoraat jotee da nga laaj sa boroom mu bàyyi la fi ba ca kanam ndax nga réparer erreur boobu ndax nga réparé njuumte loolu ñaari njuumte yooyu njuumte lenn li mooy njuumtel man aji te ajiwoo njuumte lenn li mooy am alal te azakaaloo ko am alal te azakaaloo ko waaw bi mu ko waxee jenn waay na ko du dëgër fit ci werantekat yeeg diingatkat yeeg commentaire kat yi kooka ne ko é eh, innama yasalu rajaa al kuffar ne ko ibnu abbas rawoonu nag loolu la waa jox ibnu abbas rawoonu nag ki nga xam ne mooy laaj loolu mooy yéefar yi waaye julut kay moom du laaj loolu nag ibnu abbas ne ko wa inna dalika fi kitaabillahi taala li la wax ni moo ne ci téereb yàlla bi ibnu abbas wax ko loolu ndax ñoom ñeme nañu débat moo tax du ñu saaga waaw ñoom ñeme nañu débat moo tax du ñu saaga ki ñeme débat te am argument du saaga déedéet du def hors sujet du fa bàyyi débat bi di wax ci sa mbaxana waaw walla sa dàll yu taq déedéet ca débat ba lay wax bi Ibn Abbas waxee loolu waa ji daf ko weddi waaw daf ko weddi ne ko innama yasalu ar rajaa al kuffar ibn abbas jëlaat kàddu ga ne ko moonte li ma la wax nii de moo na ci téereb yàlla bi li ma la wax nii moo na ci téereb yàlla bi de mu ne ko ayca ibn abbas daal di koy jàng wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya ahadakum al mawt fa yaqulu rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min asalihin wala nu yuaxira llahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirum bi ma taamaluun waajana cell ne ko wax nga dëgg nag moom waaw moom it nekk intellectuel eh, waaw koo xam ne ku la nga nangu du ko wax waa waaye def na ko rek wax nga dëgg waaw penc mi it kuréy mënut loolu kuréy kuréy moom ba xasee ne lii nangam la loo mën a waxe du ko nangu ku rëy mënul loolu loolu mooy ku mooy koo xam ne kii du nangu dëgg waaw tabarkalla mu ne ko borom bi daa wax ne joxe leen ci li yor joxe leen ci li ngeen yor balaa bisu dee di ñëw ngeen naan yàlla bàyyi ma ba ngoon ma joxe <laughs> waaw joxe leen ci li ngeen yor balaa dee di ñëw sukuraat ngeen naan yàlla bàyyi ma ba ngoon ma joxe te yàlla du yebal malaaka mi mu dëppaat ak loxoy neen yàlla du yebal malaaka mi muy jëli nit muy dëppaat ak loxoy neen wala ñu axira laahu nafsan idaa jaa waaw comme xas na départ sunu boroom am na taxawaayu fulla jutal ni malaaka du dëpp loxoy neen waaw ba doon na ko wax sunu maam jamaam musaaka waaw eh, loo xejj xejj loo xejj xejji du tee dee ñëw sa kër di sa gan te loo ko berndeel lu dul sag ruu du génn sa kër waaw maam Moussa ko wax waaw pël ba daan jàngal wolof yi wolof <laughs> mbokk yi Ibnu Abbas waa ji ne ko ah tu as raison wax nga dëgg mu ne ko ah waroon ngaa ñëw ci débat yenn yi de débat boo xam ne kenn du kenn du du du du du gagné wax wax ba jeexal rekk dem la waaw moo tax Cheikh Diagne bi tey a ci rajo Dunya yàlla na ko yàlla yokk wér bu bu invité bu waa ji waxee ba noppi day tënk tomb yam wax door a laaj kenn ka leneen waaw moom noonu la koy defee nga xam ne bu jeexal ñu amee ca dara <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér Cheikh Ahmad Tidiane bi tey mu nga fële ci rajo dunia waaye tabarkàlla booy déglu débat yi muy woo nit bu nit ki waxee ba noppi da ko da wax su ma déggee li nga wax ci tënk ay baat yu am solo ñun ñuy seetaan ñu tënk ko ca mu door a laajkee ab laaj waaw ndeysaan yal na ko yàlla yokku wér moom tabarkàlla daal <laughs> mbokk yi maa ngi ci suratul xajji aaya 32 borom bi nee na ñi nga xam ne ñooy moytu bàkkaar yu mag yi dana leen jéggal bàkkaar yu ndaw yi waaw ma toll nag ci lim bàkkaar yu mag yi ndax nu ñu ñëpp nu xam ko maa ngi ci bàkkaaru juróom-ñaareel mooy ku am lu mu aje ji am lu koy am yóbbal ba noppi bañ a dem ibnu abbas di indi ay commentaire moo omar ibnu xataab ginnaaw bi alayhi salaatu waxee jëlee kàddu ba wax ba noppi ah, asaka nag warul ñëpp ku am nissaab lay war aj màkka warul ñëpp ku am yóbbal ak lu war moom lay moom moom moom la war waaw moom la war mbokk yi teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom may nu dund ba àjjuma te weesu ko ñaan ko mu def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër deret ji tuuru bari na accident yi bari na sunu borom yaay sunu borom sunu borom yaay sunu borom